visite de sensibilisation la pour wax askan wi wàllu transport coono biñ si daj moo tax ñu wër raison yi pour xamal leen ni dañuy dem grève le premier ak le deux. di composé ci dix points dix points yëpp am importance sax mënuñu citer benn bàyyi bi si des non yëpp am solo amul benn bu ci am solo boo boo tudd rek beneen bi da naan amul solo. benn duñ si tudd benn di bàyyi bi si des dix points yi dix points yi bokk ci tracasserie routière bokk na ci document administratif bi nga xamante ni dañ koo yokk bokk na ci UEMOA bokk na ci aussi euh, concurrence déloyale mooy warga ndey bokk na ci plusieurs points yoo xamante ni dafa composé loolu lu mel ni du xaw ci am réew te état du ko yëg def nañ ko bien avant depuis deux mois ñu toog ba ñu préparé suñu tournée ñu wooñu pour négociation effectivement loolu mooy seen rôle ñu bind ñu par convocation mais malheureusement booba ñun tamit entamé nañu sunu foy de route mënatuñu reculer ñu ne ñu bindaat leen tontu leen par écrit dem nañ ba xam ni transport yàqu na yàqu goo xam ni benn nit rek mënu ko defar kenn ku nekk di xool sa ay intérêt personnel kenn ku nekk di wane ni maa fi ne te mënoo nekkoo fi bi ñu demee nag ba xam loolu ñu dajaloo fexe ba organiser wu fexe ba créer cadre bi nga xamante ne nii dafa composé quatorze syndicalistes ñu tuddee ko cadre unitaire loolu moo loolu moo waral ñu àndandoo. non suñu grève amul limite le premier la ñuy bu ñu amee gain de cause ak état li ñu bëgg ñu defal ñu ko foofu lay yem buñ ko amul xamaguñ fu mu yem. suñu grève bi ñuy def c'est le problème de transport ñun ci transport lañuy dund ci la ñuy dundal suñu njaboot li waral mbooloo bi yëpp mooy transport ñun nag yàlla dogal na ci organisation bi nga xam ne def nañ ko ba transport nekk benn trans euh, syndicalistes si nekk benn organisation boobu. moom la ñuy wóyal continuer ko ba am fédération comme ni ko yeneen pays yi amee pour transport mën a jëm ci kanam lépp ngi ci biir lu ngeen xalaatul rek mu ngi ci biir euh, suñu grève bi. may fàttali nag benn affaire am na benn gendarme boo xam ne dafa ñu attaqué guerre moom moo gën a yokk grève bi dina gën a am danger bi ñuy dugg Ziguinchor gendarme bi moo ni yéen ngi dem grève waaye ñu ngi leen di xaar su ngeen paree ci grève bi loolu mooy lan su ngeen paree ba ñëw. ñu duma leen waaye jàpp nañu ñoom dinañ leen duma ba jëlee leen